war nañu am yaakaar war nañu dalal xel li ngeen fi wax yépp nag te yéene ko rek ngir jëm si ñam laxat ngir pas-pas ngeen am ci moom ak yéene ji ngeen am ci moom ak bëgg ngeen ko bëgg yàlla na ko yàlla soxla ci seen loxo jaay seen sant itam mbooloo mi fi teew mépp dañu am na ñoom jóge Tuubaa ci ndigalu suñu kilifa seen seen ñu ngi leen sant baax di leen gërëm ñu àgg tàgg bis

nit ñi soññ nañ aji leen ku leen dimbali seen diine aji leen ku leen dimbali ci wàllu financement aji leen ku leen dimbali ci jub kon nag su bisam ñëwee lam daan dund loolu lañ ci waay dégg ko yóbbuloo ngir jay ku ko def rek danga mucc tey da nga mucc ëllëg ngir nitu mucc mucc musal nit ñi moo ko indi woon rek ak dëmb leen ak siggi leen ak sagal ak tefee ormal kon bisu teraanga ngi ñëw bisu jaayanteeg ñëw bisu jàppalanteeg ñëw bisu dimbalanteeg ñëw yàlla na ci àgg ak jàmm te am ci ngërëmu sëñ bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh di ko ndokkeel si weeru tedd wi di ko ndokkeel tamit si bés bi xam ne si leen jëm leen wax dañu jottali suñu nuyoo suñu ziyaar sëriñ Sidi Abdou Lahad xalif sëriñ Abdou Lahad ak sëriñ Sidi Mokhtar Mbacke xalif général des Mourides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

que vraiment donc jafe-jafe du ci am fepp foo xam laaj na barrière mu indi ko fa fu laaj policier ñu yóbbu ko fa fu laaj tamit gendarme ñu yóbbu ko fa fu laaj sapeur pompier ñu yóbbu ko fa parce que dinañ si taxaw pour mën ko matale wala ngeen kontaan parce que yéen résultat bi moo leen intéressé mo am sécurité totale mo leen intéressé ñu fay ba résultat boobu ñu mën ko am euh, li ngeen si wax tamit diggante bi comité d'organisation ni mu war police ak gendarmerie surtout mais également sapeur pompier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

le 9, bi bëgg ñu je pense que loolu lu mën nekk la boole parce que ça voyages yi ngeen wax mairie dina ko def incha allah jël nañ engagement euh, Orange war ko tamit camions pendant cinq jours De quinze au vingt parce que Orange na si euh, ko suivre direction générale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 donc nous faisons le maximum pour que ko def si Nous avons dégg tamit hydraulique donc 10 citernes 10 bâches parce que y a déjà 6 camions disponibles. Et 7 bâches Nous avons li ñu uti Dakar mooy complément bi 4 camions et 3 bâches Nous avons boobu tamit ko dox Dakar pour que a am complément boobu li li des également li Maou Rahmati war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

Euh, boo mënee am donc internet mën a suivre sa actualité réew mais surtout mën a bokk si sa màggal waaw je pense que lu am importance la waaw euh, dégg nañ tamit donc li ngeen demandé si wàllu douane wàllu commerce ak wàllu élevage tolérance yi ñu si war a def mais contrôle bi ñu si war a def également contrôle si qualité bi contrôle si njëkk yi je pense que loolu commerce ak élevage dañ ko def bu baax mais tolérance également vraiment surtout par rapport ak douane parce que nit ñi jóge fële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

payoor booy ñëw ñun tam ñu mën si am